yegg si nañ ci fas yéene cee dalal Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu jaamu séeréer naka yi tey ak yu tey dafay Abdoulaye alhamdulilah maa tawatu euh, ça va ñu ngi ci jàmm ci kawam alhamdulilah ñu ngi ci kawam jëfati euh, naka yi tey ak yu tey alhamdulilah dina baax incha allah léppay baax waaw naka gàmmu gi mbaa fasaale nga ñu bien passé alhamdulilah gàmmu nañ si jàmm waaw waaw waaw euh, di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne ko si amin waaye eh, ñaan nañ ko si yàlla nañ ko borom bi subhanahu wa taala nangul amin kilifa yàlla mu doon suñu mujjante lu gàmmu amin am na ci solo waaw aussi di profité aussi di sant di gërëm baax. Mhm. Euh, euh, sëñ soxna Khady Diatal. waaw euh, moo nekkoon soxna ki nga xam moo di kii Jamil. Mhm. sax damay fàtte tur bu bu sëñ Mansour si. Mhm. te yàlla defaloon mu génn àdduna ni kii fan yi sax mi na ñaari Euh, wax dëgg yàlla moo ñu dalal fële ci Tivaouane euh, dalal ci Tivaouane xam nga euh, équipe bu presse moom mm-hmm. boo leen dalalee rek kooku dañ lay sant gërëm mm-hmm. am na ci mm-hmm. daal xëy gi dafa xaw a des waaw liggéey beeg yeneen ak yeneen liggéey bu fekkente ne mën nga leen dalal ñetti fan kooku dafay logique bu fekkente ne génn leen gërëm leen ñu jaajëfal ko bu baax a baax sant ko gërëm bu baax am na ci solo ne ko borom këram wóolër la woon si Sidi Lamine Niass parce que ñëpp ay doomu soxna lañu Euh, mënoon na borom këram génn àdduna mu ne léegi jeex na. Mhm. waaye defu ko. sàmm na couleur dina sàmm couleur gi. Mhm. kon vraiment mënuñu koy sant di nooy gërëm ko di sant mi di gërëm bu baax a baax Cheikh Baye. Mhm. Euh, mi nga xam moom aussi du dañ aussi di dalal équipe bu Walfadjri. fu fekkee diwaanu Touba. waaw fële ci diwaanu Medina Baye Kaolack Medina Baye ak Léona Niassène waaw dëgg yàlla boppi ba ma nekkee Walfadjri ba ne. waxtu wu ñu ngee këram la ñuy dalal. te dara du manqué. waaw ba ci équipe bi passé rek. bi bi dem ren rek ñu ngi ma koy wax kon moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm baax a baax soxna aussi par rapport ak taxawaay bi nga xam mu mhm. <laughs> ngi koy taxaw équipe bii di Pastef yéen bu ñu deful donc bukki bi nga xam ne ni euh, moo nekk di yot Benno Bokk Yaakaar dana dal parti bii di Pastef noonu la ko yéen giir Walf Quotidien ko te nga xam ñooy jël gaal yi xam ne jamono giir Walf la euh, yéen kaay gii di l'enquête xëyee dellu ci élection présidentielle 2024 yi dëgg mën wax ci candidat yu bari yi nga xam ni ñu koy nemeeku jamono ji parti bii di Pastef yéen kaay na xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu. taxaw geneen le mandat. le mandat xëyee dellu soit ci yeewi askan wi mi nga xam ne jamono ji daanaka armée mexicaine lañ ko mën a duppee bari ci ay candidats euh, yoon wu mag ki nga xam moom di Amadou Ba ñu ne la ko gii di la mandat xëy fës l'évidence lam ñëw jukkil yéen a kaay gii di l'évidence xëyee dellu soit ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal wax ci pa Bougane Gueye Dany gannaaw parrainage ak daanaka euh, mu ngi koy xaar noonu la ko yéenekaay gii di l'évidence mu ngi koy xëy fës yéenekaay geneen l'info yéenekaay gii di l'info xëyee dellusiwaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu ne euh, neexul ba neexul waaye jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax gis nañu parti bi jamono ji fantasiro nañu deuxièmement aussi bëri na ci ay cadres yoo xam ne yi ña nga ne tek waxuñu euh, ba ci aussi parti allié yi nga xam ne jamono ji président Max joxu leen benn doole ci équipe parrainage bi nga xamul moom la doon taxawal noonu la ko yéen kaay gii di ne foo xëy fësale yéen quotidien waaye yéen kaay gii di le quotidien xëy dellu sox ci Amadou Ba mu ne jamono ji mu ngi ci tànki mu ngi ci tànk mu ngi ci tànki euh, Aly mm-hmm. euh, a bokk ci na ngir bokk ci te moo amoon na yeneen façon yoo na ko am parrainage mm-hmm. waaye moom parrainage citoyen la euh, la opté mm-hmm. gars jàpp ne lii moom bu bu bu fekkente ne lu wér la kon ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao ba ci Boun Abdallah Dionne dana jafe lool si ñoom ñu am parrainage noonu la ko yéen a kaay gii di la côté ña xëy fësale yéen kaay bi di critique waaw yéen a kaay gi critique ci loolu la xëy dellusiwaat xam ne ni euh, daanaka lancé la nga xam moom doon waxtaane ci suuf mm-hmm. wax na la doon waxtaane ak Amadou Ba waxtaan wi nga xam jot na ko si xëkk euh, euh, maanaam délégué région nii yi nekk si biir fukki commune ak juróom-ñeent yi nga xam ne nekk département bu Dakar neen daal la mu bëgg mooy fexe ba nangu war Dakar ci loxol opposition bi noonu la ko yéen kaay giir suuf saa xëy fësale le peuple quotidien yéen kaay gii de le peuple xëy dellusiwaat dalal Aminata Touré moom mi yëkk ay kàddam daal wax na ne Amadou Ba dafa war a démissionné ci pri euh, maanaam ci bopp primature. na nga ko 24 heures. yéen a kaay gi 24 heures xëy dellu soit ci beneen candidat bu samp ne dama fas yéene bokk élection présidentielle yi di ñëw. <laughs> Aliou Sarr lay wuyoo Aliou Sarr lan moo di lan moo di waaye aussi lan mooy programme jëm ci élection yi lépp kon mi ngi ci yéen a kaay gi di 24 heures. yéen a di réew mi quotidien. Abdoul Mbaye la dalal ci laaj ak gi dox na ci ci. tolluwaayu koom-koom gi ci réew mi ba ci ñàkkum xëyum ndaw ñi wax na tamit programme moom bu yàlla defee kon bu jotee ci bopp réew mi lépp kon mu ngi ci yéenekaay gii di réew mi yéenekaay bi di Sud Quotidien yéenekaay gii Sud Quotidien xëyee dellusiwaat dalal Aliou Tine Aliou Tine nag yëkkati na kàddam daal di ñaaw taxawaayu Thiendella Fall Euh, bi mu ne du cëram moom muy tere muy muy tax muy xaj Ousmane Sonko euh, mu jote ci fiche de parrainage euh, mu nekk nag ay kàddu yoo xam ne à mu ngi ko yëkkati ci kaay gii de l'air ñoo leen bi di stade stade yéene kaay xëy ci Ilimane Ndiaye mi nga xam ne jamono ci tàmbale woon tàmbale naa woon boppam mm-hmm. euh, fële ci OM Mori Diaw moom moo sauvé keroog moo maanaam moo sauvé démb mm-hmm. euh, Montpellier ci match bi doxoon ci diggante ak Paris Saint-Germain yéen gi ne bu woon Mori Diaw kon waxtu wi ña ngay mas waa Montpellier noonu la ko yéen kaay gi stade xëy fësal Abdoulaye yéen kaay di suñu lamb lu mu ñëw wax ci combat war a dox ci diggante Ada ak Zos mm-hmm. combat bi ñu ko jàpp nit juróom-ñetti fan ci